waaw raw bi tey li ko sabab mooy euh, ñun dañoo nekk euh, ay acti ay ay automobile donc di yëngu ci wàllu mécanique euh, yow benn kuréel bu ñuy wax Revas. donc ñoo amoon activités yi ñu planifié woon tey moo nekkoon jour bi nga xam ne ci même randonnée démb ñu ngi woon ci investissement humain partout dans le Sénégal garage yëpp ñu nettoyé ko def sa bu mag ci senegal yëpp ci garage yëpp donc tey encore. ñu ne dañuy def randonnée xëy ànd dox tangal yaram yi tuuti ñu mbokk suñu mbokku acteur automobile yëpp ñu ñëw ñu ànd booloo doon benn di woo tamit état mu ñëw jàppale ñu comme ni ko ENDA defee ENDA tey dafa ñëw fekk si ñu pour gunge ñu ci suñu liggéey pour jàppale ñu pour won ñu yoon bi tamit kon ñu ngi woo état tamit mu ñëw jàppale ñu parce que nag secteur automobile wala ci wàllu mécanique dañoo soxla ndimbal lu bëree bëree bëree bëri mu ci wàllu formation mu ci wàllu foncier mu ci wàllu finance mu ci lépp ci wàllu matériel équipement loolu yëpp si tey soxla nañ ko. tey euh, programme bi fii ba 2030 la d'ailleurs déjà démb comme ni ko waxee def nañ set setal maanaam journée investissement humain loolu yëpp lu ñu ci jublu mooy pour conserver suñu garage yi waaye mu set waaye mu sell euh, fonk aussi environnement bi parce que tey garage yu bëri dañuy dañuy def ay kër borom kër yi aussi xëy na euh, climat beeg taxaw bi du leen arrangé donc moo tax ñu def journée investissement démb pour conserver environnement bi. nekkin bi gën a rafet gën a sell gaara si soppeeku aussi am beneen xar kanam donc dañuy def euh, aussi am na am na yeneen projet aussi ñu war a def donc ñu ñu ngi aussi sensibiliser ñëpp suñu mbokku garagiste yi nañuy fexee garage di set nañuy bale nañuy organiser garage yi nañu moytu épave yi nañu gën a defar toogaay bi parce que mooy tax état jox ñu cër mooy tax aussi dëkkandoo jox ñu cër kon maa lancé appel vraiment garage si yëpp ñu bàyyi xel si loolu fexe garage di set